Uh, we are going to go with the Gambia student, Saudi students urge ministry to apologize, withdraw statement. And the Gambian students in Saudi Arabia whose details were published by the Ministry of Health for allegedly jumping quarantine after returning from the United, uh, from the Kingdom have debunked the claims as false, saying the ministries fail it in its responsibility. They told. um, urge the ministry to apologize and withdraw its public, uh, published statement. Wow, interesting one. Uh, mm -hmm. When I saw the headline, mm, knowing last week, regular ministry <laughs> they have published wow. the names and uh, uh, details of, of, of, these students who mm -hmm. they allege uh, flee or escape from quarantine. Wa ñu ngi wax lolu amut. Yeah, uh, mu nekk lu lu contradicting uh, contrasting uh, statements mm-hmm. nguur gi through the ministry ñoom ñoo njëkk a wax ñaawlu act bu gars yi def mm-hmm. tey nag ñoom buñ génnee ñëw weddi ñoom tamit publicly di wax ne loolu lu gars yi wax ne amul te buñ ci yem nañ leen jégalu mm-hmm. loolu benn affaire la so what's going to be the response now from the authorities we will wait to know that and I think that's that's that's important waaye conflicting statement la wala reports yi ñoo dégg ci yëf yi te bu bu act bi amee ñu jàpp ñu bëri jàppoon lu ñaaw la parce que jógee ci biti ñëw di génn a quarantine mm. forcé gi dem ñi bi nee nañ ñoom ñoom according to what they saying ne mm-hmm. ñoom dañ leen promise woon ne bu ñëwee Sénégal dañ waxoon ne dañ bëgg a am moto bu leen naa jox uh, from the Senegal to the Gambia which the authorities comply they did mm-hmm. but instead of uh, being picked by the military uh, health officials they were picked by the paramilitary ñu yóbbu leen ñu ne dañ leen naa yóbbu quarantine waaye dañ leen gis gisuñ ñooñu kenn foofu so a go back uh, to their homes ñooñu ñu ne lii dafa happen since July kon loolu benn affaire la uh, I don't know what is which is uh, find out and then hopefully ministry nañ leeral tamit wax li li nga xamante ne mooy tax